am ñu décidé waxna sax kenn ko xamné ne ko président Sall nee ma euh, jugement bu njëkk bi ci affaire Mame Mbaye dafa rëcc ndax y avait un juge Pastef maintenant appel d'en rattraper wu ñu bari seen xel dem ci yow nga confirmer légui rencontre bi donc xel daf ci ñaaw par rapport ak ñetti question yoy boo ñu ci mëna léral s'il vous plaît. waaw ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ginaaw bu ñu sante euh bëggoon wax que luma fi indi tay du teesante lu ma fi indi tay tamit moy euh, waxtan ak mbokk yi xamal askan wi ndax ñu mëna a ak mëna a man luma gëm moy kilifa day am parce que ci loolu lañ ma ma tamit wax ci le 26 janvier ci 2023 la taxaw ci télé bu site internet bu ñuy Seneweb man ma sakku ci président Macky Sall ñu teg bal à terre wote waxtaan kon waxtaan bi du waxtaan bu Macky Sall woote du dialogu Macky Sall dialogu Barthélémy Diaz la ma bëggoon wax ci leer mooy benn beneen bi nag ma bëggoon tamit askan bi bàyyi xel ci lu may wax ba ma koy lancé 26 janvier 2023 ak tey presque ñeenti weer na mosu leen dégg benn kilifa ci yeewi askan bi bu fi yëkkati ay kàddu ne ñoom ñu ci du Barthélémy Diaz wax

kenn ki ëpp doole keneen ki xëcc am ndam mais lu ma gis nii gisuma ndam fii gisuma ndam fële te wax naa ko ci émission yi ma lente dama am xel ñaar parce que suñu toogulee waxtaan lu ma gis mooy buum bi day dagg te buum bi su daggee ñaari côté yi yëpp ñoom ñaar ñëppay xalangu te ala kulli aal dina am kuy ilif Sénégal te ci suma xalaat bu gàtt kuy ilif Sénégal gisuma ko dal mu don luñu ñuy ku civil moy luñu ñuy civil moy mo xam société civile lay bàyyeeku wala mo xam ci parti politique yi lay bàyyeeku wala mo xam feneen fu munti bàyyeeku ma ne man dina lancer un appel lolou mo waral Barthélémy Diaz lancer appel le 26 janvier 2023

ñu ne ñun mën nañ jël garantie wante est-ce que yow mën nga jël garantie que yow tamit mën nga waxtaan ak sa leader yi mën leen man ñaari ñit lay waxal ci coalition bi parce que lepp lu may def ci politique ak ñom ñaar la kay sekkal kenn ki mi ngi tuddu Khalifa Sall moy suma leader politique keneen ki mi ngi tuddu Ousmane Sonko ma jappé ko muy suma doomu ndey ci politique ñu d'accord ci lolu ñooñu su ma juumulee ñoo nañ suma kër ñaar ba ñetti yoon te su ngeen su leen neexee yenn ngeen dem suma kër ngeen xool suma kër ça veut man tey su ma cër mënu ma toog fi ne damay joxe ay preuve mais ku ma woo ci yenn yi ma fekk si la ci yow parce que nag du ma nangu kenn du ma dëkkaloo fu ma dëkkul man suma kër yëpp ay caméra la kuy dugg suma kër dañ lay gis kuy génn suma kër dañ lay gis ak heure bu munti doon ñooñu maa ngi leen di jéggalu parce que kilifa lañu te amuñu benn intérêt ci lii yëpp ñooñu nangu sol seen dàll ñëw di waxtaan ak man pour mën a dem jokkoo ak président pour mën a convaincre président que man damaa sincère ñooñu ñëw suma kër ñetti yoon saay bu ñuy ñëw suma kër yëkkati naa suma téléphone woo naa Khalifa Sall ne ne ko ñëw nañu lii la ñuy waxtaanee. ma raccroché ma wax Ousmane Sonko mané ko gay jaar nañu li lañu waxtaan te amna ci yaakaar ñom ñaar ñep kenn musuma wax d'accordu ñu ci li ñom ñaar ñep te ñu may dégg dem nañu ba ci waxtaan bi mad laaj ñom ñaar ñuma andal ma leen est-ce que yeen di ngeen d'accord su suñu nee waxtaan laata waxtaan bi di am est-ce que d'accord ngeen jokkoo ak président Macky Sall téléphone saa fonte jàmm ak moom ñu yonte ñu ne ma d'accord kon loolu lu muy firndal mooy ñooñu ay nitu ay nitu jàmm lañu. damay damay dëgg ñoom ñu doon euh, ñu doon euh, ñu doon ñëw pour le compte du président Macky Sall ba ñuy toog di waxtaan di waxtaan. est-ce que yow Barthélémy Diaz est-ce que yow nga ak président Je ne leen nangu toog ak président dafa am condition man du ma dem man du ma dem président Mermoz te nangul naa leen tamit président de la république président la mënul ñëw suma kër kon dañuy wut terrain neutre ñu ñu man ci président gàcce bu Sénégal am ci forum de l'eau bëggoon naa ñu waxtaan parce que ñu ngi waaj forum mondial sur l'économie sociale et solidaire te dama bëgg moom mu ñëw teew aussi ñëw présider cérémonie bi ñoom ñu def lu ñu def ba yàlla def de ne bés bii ci waxtu bii ci bërëb bii dinaa toog ak président Macky Sall la dernière personne avec laquelle j'ai parlé ba may dugg ci bërëb bi c'était Ousmane Sonko on a parlé pendant plus de 30 minutes au téléphone manak Mom, qui a une stratégie Beaucoup wax parce que lii du suma mais les Sénégalais ont droit de connaître la vérité parce qu'on doit se respecter Nutok, président EXI. alors merci le maire de Dakar monsieur le président de la République audience Bobou Manak Mom Kessé Akyal. ak Mom Mom, qu'est-ce président Nangou, déplacez-vous.

wante sargal Sénégal parce que lu jotoon xew ci forum de l'eau yow nga jaar nii man ma jaar na le loolu rafetul te jeux olympiques de tamit mi ngi ñëw yàlla ko xam ku fiy nekk président de la République mais man président dama la bëgg a xamal ne ni yow doo suma noon te yow xam nga ni xam nga bu baax a baax que yow doo suma noonu suma adversaire nga te président àdduna du soppeeku ba man ma ànd ak yow mu ne ma loolu xam naa ko baax ma ne ko président Yo, ba équipe nationale football gagné coupe d'Afrique Dang ma wo invité ma ma ñëw mu ma loolu amna mané ko yo ba ngay inaugurer stade Abdoulaye Wade bu bees bi Diamniadio dang ma invité ma ñew mune ma loolu amna mané ko bo may invité 4 avril damay ñew mune ma loolu amna mané ko lutax man suma la invité yo do ñew mune ma d'accord dina réfléchir ma jëli ma ko président damay jël engagement bu ñu fa yuuxu kenn du politique moo ñu fa yóbbu du ñu fa tàccu kenn Sénégal rek dañuy sargal mu ne ma d'accord dinaa réfléchir dinaa la revenir noonu la mbir bi demee ci affaire forum bi ñu commencé nag xuus dugg ci politique ma ko président mu ne man naam ma ne ko man duma candidat loolu la yàlla dogal namuma candidat ma ne ko wante dama ànd ak suma mag ñu koy woy xalifa Sall te dañ ko jaay doole maa ngi jóglu nag ci kàddu yi mën nga ci bañ a ànd mën na bañ a doon sa xalaat wante dañ ko jaay doole jaare ko ci politique galgal ko bañ a bokk ma bëggoon ñu waxtaanee waat kaawu xalifa Sall ma ne ko beneen bi tamit mën naa juum maa ngi lay jóglu ci kàddu yi lu la constitution may ci sañ-sañ mooy da ngay organiser élection doo organiser sélection ma ne ko yow doo sélectionneur ñu xaw a sax kaf tuuti ma ne ko tey fii wax dëgg yàlla dama gis suma yenn doomu ndey dañ leen di jéem a galgal ma bëggoon ñu waxtaan ci parce que ñoom dañu nar a bokk ma ne ko tey président maa ngi jégalu ci kàddu yi nag parce que xam naa doo ci d'accord ak man ma ne ko ci jàngat bu ma am ci constitution yow amoo droit am troisième mandat mu ne ma ak lan ma ne ko président dama bëggoon ñu waxtaan ci fichier bi mu ne ma ak lan mané ko dama bëggoon ñu waxtaan ci révision L29 ak L30 du code électoral mu ne ma ak lan mané ko président Sénégal dafa am ay détenus politiques ñu ngi ci ñu yi ñu rayu ñu kenn amul benn Sénégalais bu leen plainte yow soo jàppee amul détenu politique man lu ma jàpp mooy dafa am détenu politique ñu war ko waxtaanee mu ne ma ak lan ma ne ko président mënuñu nekk. saay bu Sénégal amee président bu bees ñuy bëgg a nelawal sénégalais yi wala di bëgg a lëndëmal seen seen xel dañu ne a teg lu ñuy woy clause d'éternité mooy ba illaayo midin bii di deux mandats pour président kenn mëntu ko laalaat <laughs> mu ne ma ah bon mu ne ma yow xam xalaat nga sa gars yi dinañ nangu waxtaan ci li yëpp ma ne ko président heure bi nii ginnaaw yow ak man ak ñu ma fi indi ak yàlla ñaar ñaari ñi kese képp rek donc ñoo xam ne ni maa ngi toog fii ak yow ba may dugg jot naa leen téléphone te su may gél tamit dinaa leen woo téléphone kenn ki mi ngi tudd Khalifa Sall keneen ki mi ngi tudd Ousmane Sonko mu ne ma ah bon ne ko waaw ma ne ko te am naa yaakaar suñu toogee waxtaan dinañ jubóo mu ne ma ah bon ma ne ko waaw ma ne parce que président lu may gis nii arrangé wu la arrangé wu ma mu ne ma lan nga gis ma ne ko man lu ma gis mooy yow do bàyyi té ñun tamit duñu ko té day dag nga gis mané ko waaw mané ko té du la ñun tamit duñu arranger ma d'accord kon baax na ci xalat ma génn woo ñu may woo wax leen lu leen di wax kon su amee ci déclaration yi kenn ku njëkk ne que sax ni que ça fait pas sérieux tu es informé en amont pendant et en aval les Sénégalais nous connaissent moi j'ai 18 ans d'actif sur ma carrière politique Je n'ai jamais été pris à défaut de déloyauté ou d'infidélité ou de trahison je suis un pur produit de l'opposition politique sénégalaise et je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle quel est, l'intérêt que j'ai donc tey alors il semble que Souma Khalid Ousmane mu ne waaw dama ko nekk Macky daf ma nekk benn juge ou Pastef moo ko jugé Je ne sais pas ce ma ma mais Ousmane <laughs> moom xam que si que su nekkoon juge u Pastef du ko fëgg 200 millions amende moom xam na ko te man lu ma seq ci avec ak président Macky Sall munuma fessel du suma cër luma ci noron wax ak Ousmane Sonko wax ko ak Ousmane Sonko féetoo na boor lu ma wax Khalifa Sall wax naa ko te ñom ñaar ñep ken ci ñom ñaar ils étaient pas opposés au dialogue yow ku dem ba ne d'accord na joko ak ki téléphone ñu saafonte mais kooku savez il est d'accord pour le dialogue je ne vois pas aujourd'hui où se trouve le euh, où se trouve le problème lu tax nit ñi diñu bëgg a dëkkaloo fu ñu dëkkul diñu ñu xas di ñu ak diñu bëgg mais mais ak diñu bëgg a ak tamit di bëgg manipuler askan wi duñ ko nangu non duñ ko nangu ñun duñu ay muuma maa ngi jégalu nag ci kàddu yi parce que muuma moom nattu bu la yàlla teg ñun ñun duñu nous avons une bouche pour parler hein une tête pour réfléchir et nous sommes assez courageux pour nous défendre maintenant chacun assumera ses responsabilités du moom la ngay woote on avance en avant rek mais ku que assumer ses responsabilités parce que nak nit pour dem ba ne la diw mooy suma candidat diw boobu mi ngi tudd Khalifa ababakar Sall wante su yalla yàlla mayulee affaire bu mu mën a man diw lay jàppale en l'occurrence Ousmane Sonko koku wàccoo ak yow man kenn gënuma yellool Sénégal candidat élection présidentielle j'ai fait trois mandats à la mairie de Mermoz sacré deux mandats à l'Assemblée nationale membre du bureau de l'Assemblée nationale maire de la capitale sénégalaise te wax Sénégal nit ñi mën nañ bañ a ànd ak man wante gëmuma que je suis dañ ma jéppi parce que defuma fi lu tax ñu may su ngeen depuis le 26 janvier 2023 Sous Ousmane Sonko un téléphone wala mu jaar suma cœur comme il le fait souvent na ma d'accord d'accorduma dialogue je n'aurais pas continué et il le sait su Khalifa Sall woowoon nama ma baxt sa appel au dialogue du 26 janvier 2023 anduma ci duma ma ñom ñaar ñëpp ñu ngi may dégg j'ai fait preuve de fidélité de loyauté avec eux et de transparence donc qu'est-ce qui se passe bala may dee mu am ay nit jóg tay né duñu euh, duñu dem ci dialogue bi su leen on wante ñom dafa am luñu luñu faté wax askanu Sénégal luñu faté wax askanu Sénégal moy su amé élection suba ñom dañuy bok wante duñu faté wax askanu Sénégal moy su amé élection suba ki di Khalifa ababakar Sall du bok ma yok ci nak luñu faté wax Sénégal moy ñom lan lañu jotta def ci pexé mo xam ci doxalin mo xam ci lu munti doon pour que Khalifa Sall mën a mais lolu tamit dañuy il faut qu'on se respecte Pays Sénégal nuko ko Sénégalais noonu déggee noonu la mbir bi teudé man inventé wu ma dara dafa am ay nit ñu ne ñoom pour ñu nekk candidat élection président ñoom jaral na leen lépp lu ñu am ci nguur gi moo xam ay poste ministre moo xam ay poste institution ñu delloo lépp Macky Sall pour nekk candidat ñun musuñu commenté loolu parce que seen droit la ñu nangul leen ko mu am ñeneen man duma ma inventé man dama leen di wax lu fi am mu am ñeneen ñu ne ñoom pour ñu nekk candidat ñoom jaral na leen ay centaine de bakken di rot Sénégal te ne seen yaay juraat man xasuma kenn mais loolu lañu wax ñoom loolu moom daf leen ko jaral ñu nangul leen ko waa ñun ñu ne ñun njabootu xalifa Sall ñun ci su ci suñu xalaat bu gàtt ñun pour ñu nekk candidat ñun d'accord nañ dem dialogue politique pour waxtaanee suñu candidature ak waxtaanee tamit nu Sénégal noree dem ci élection yi pour mën ci dugg ci jàmm ak salaam gën ci jàmm ak salaam ay ñit nag nekk loolu ala kulli àll duñ ci and bëgg ñu dëkkaloo fu ñu dëkkul ak di saga saaga mais ñooñu dañuy foy seen xel ma biiralaat wax ci fii man dama bëgg a wax ci leer ken fessul suba bët ma ngi tamit jógul ci kàddu yi ginnaaru kenn nenu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 wante dama ne dakaat bu ñuy fal Barthélémy Diaz xamoon nañ bu baax a baax a baax que ñu fal naanaan fa laa yem ci wax ji te man bëgguma teesante ak kenn parce que du suma cër wante lu ëpp tuuru ci ay wax dafa doy Khalifa Sall ne patt rek di ànd ak stylam ak yaram ñu koy saaga di ko saaga mel ni moom amul yaay eh, maa ngi jëlu ci kàddu yi mel ni moom amul amul soxna mel ni moom amul ay mbokk mel ni moom amul njaboot ñu koy saaga

diw na lu ñu am lii wala diw na lu am lii yaay kan foo ko teg yaay kan loo fi liggéey te liggéeyuñu ko loo fi daj te ñun dañu ko ci dëkk bi nit ki su la yéenee da nga koy yéenee tamit loolu mooy gor loolu mooy jullit ñun ñëpp ay jullit lañu kuy jullit mooy kuy julli et on prie le même Dieu yéen gis ngeen fii ba ñuy installé charte Yewwi Askan Wi gis ngeen ko fi

nit ki mënul nekk sa doomu ndey di la wax yu mel noonu parce que yow soo jàppee ni que yow pour nga doon candidat jaral na la ñu boom ay centaine de sénégalais te sa yaay noonu jurat yow soo jàppee ñu ne wax jooju doo amel sénégalais yi ak waaw yow soo jàppee que ñun wax dëgg yàlla ñun si moo tax ñu amel sénégalais yi ak wax dëgg yàlla man je préfère ne pas commenter wax jooju damay bàyyi sénégalais ñu apprécier loolu moo tax ma toog fii man du ma teesante ak kenn mais biralaat wax ci qu'il n'y suma bët nous xamul lek dama ne ñu ma xamul ba heure bi ni ñoy taxaw di ma moi j'ai dit non à Ousmane Tanordien, ancien secrétaire général du parti socialiste tout puissant Khalifa Sall bi waxna ko non du du <laughs> si vous pensez que je vous dirai pas non c'est que vous n'avez absolument rien compris dama ne mbokk yi appel bi au dialogue du appelu Macky Sall Macky Sall ci boppam man dama ko appelé appelé ñeneen ñi ku bëgg a ñëw ñëw ku bëggul ñëw nga toog sa kër ñu respecté sa position lu may wax ci su ma juum wax nga ma tamit ci waxu ci waxu grand théâtre nu mbir bi tëddee foofu grand théâtre xam ngeen président de la république suy ñëw ci xew daanaka ñun même suñu garde corps yi doo leen gis ci photo yi ñoom ñëpp dañ leen di évacuer

mu am président bi am ministre bi ak man ak euh, je crois photographe au président de la république ak bien sûr protocole bi ak sécurité bi ñu né dañuy dem ci salle bi mané ah, président m'a ngi jégaluwaan ah, dama am ay gan mu né ma ah bon ma ne ko waaw ma ko dama invité Khalifa Sall mom moy maire honoraire bu Dakar dama invité tamit Soham El Wardini mom mo tax tay bëss bi yalla baaxee ñuko tay Sénégal mu né ma ah bon ok ma dama invité tamit sa mag ministre d'État président conférence il Yewwi Askan Wi mooy Habib Sy ma bëggoon rek ngeen nuyoonte balaa ñu dem ci salle bi ma dama ah, d'accord ñu dem wolen, leen ñu ñëw ba ñuy dugg ak ba ñuy matul ñaari minute Khalifa Sall ci gàttal moom waxul dara Habib Sy su ma juumul am na président wax ci ay kaf mu président ah yow xam nga kuy Habib Sy Habib si bu nga xamone mo fi nekk ba lolou moy mooy fullaak fayda bu nga xamone mo fi nekk ba tey président xaw kaf ak moom ñuy waaj a dem ma jàpp loxo président ma ko président ma bëggoon légal ben wax mu ne ma abon ah lan la noonu ma ne ko appel bi du sa appel suma boss ma maa ngi lay jógalu nak ci cadeau yi wante ma bëggoon wax ci leer fi man ma lancé appel le 26 sept le 26 janvier 2023 président a. ah

Nous avons 20 points Si nous ci 20 points nous na ngeen ko nous. ça veut dire donc man nous avons ñaan yàlla nous suñu si ci Nous nous ñu mën Nous ñu ndax ñu bokul heure bi ñu Nous waxtaan seen dossier nous ñu mëna nous ñu nga ni ñu bëgg galgal xam que nous ci dëkk y a des dossiers c'est pour éliminer des gens parce que duñu lay wax ci ñu dañ ko mais parce que man amna luma lu ni que lolu dafa c'est de la c'est de la surenchère politique dégg na fi kenn mu ne suñ ko bayé moom mu candidat midi midi mom ne la gagné na élection yi mais kooku mom xam na lu muy wax na da kay wax ni nak pour fuuram mom xamna ko parce que Sénégal mbokay heure bu ñuy wax ni Sénégal kenn amul 35 ci élection kenn kenn kenn amuko fi sondage ñu ngi dernier sondage bi motagul trois semaines ñun une politique Si pour que ou le wala n'est que candidat gagner le premier tour il faut que mu candidats candidat de l'Union ñuy woowee ci coalition des coalitions Manam je nga que par exemple candidat ou Yewi ak Wallu aha boobaa je suis nga am dans le premier tour mais tey Wallu am un candidat a Yewi, am candidat candidat tu yu fa candidat ñëpp dégg nañ président Malick Gakou candidat la honorable député de Fall nee na candidat la Ousmane Sonko nee na candidat la Khalifa Sall nee na su ci Yalla andé inshallah dina bok <coughs> wa maintenant fan la ñu di jàll ba am 35 ah, am am 51 fan fan motax man luma gëm moy ñepp na do bok ñepp donc ba ñu jógee foofu ñu dem en salle bon en salle man def discours président wax et puis bon ñu c'est tout n'y a pas eu autre chose que ça je pense que est-ce qu'il y a question pour me répondre bi mais Lolo, wax un Ousmane Ousmane que c'est pas possible non mais parce que Ousmane sait ce que je lui ai dit je l'invite vraiment à revenir à de meilleurs sentiments Il faut que parce que l'IEP, ça ne va pas le rendre euh, comment dirais-je encore candidat ça ne lui garantit pas la candidature non ça ne lui garantit pas la candidature parce que je suis désolé je ne reconnais plus certains acteurs politiques là on ne fait plus de politique Il hein. y a des gens qui sont dans les enfantillages hein. parce que man ma fii àdduna la wéet gore wéet di gore man je pense pas que j'ai gardé les vaches avec certaines personnes on n'a pas joué au billet ensemble waaw man ñu ma doon petite Carène Dakar xam nañ seen bopp ñu ma doon potu meew potu meew xam nañ seen bopp ñu ma doon ànd di sàcc ñambi suukar xam nañ seen donc ceux avec lesquels j'ai grandi on se connaît donc ñu nga ñu nga xam ne ni ñoom mag man ak ñoom dañu dañu dox daje ci politique il faut seulement qu'on apprenne à se respecter parce qu'il y a des choses ñun rus nañu diko wax ci ay nit wala diko tek sen ko der à partir de maintenant à partir d'aujourd'hui na ko ñëpp déggee non ku bëgg a am jàmm ku bëgg lenen am lenen nous n'avons peur de personne ken fessu suñu bëtt Ken ken ken ken ken. mais nak respecté nak ñep parce que Sénégal mo ñu ñor tay so taxawé di wax yenn yow yow yow yow xam nga ni que waxu politique dafa am yow nak la nit di bokké sa parti c'est état yëgu ko naka la nit di sa parti te état di ko ce ce dossier naka la nit di bokkee sa parti de la amende de la de la millions il faut qu'on se respecte te que ma ak président Macky Sall pour que nous nangu ñëw ci invitation bi du fait. ko mais wax jox jox des éléments d'appréciation Lum'a ma wax ak président Macky Sall pour mu nangu le principe du dialogue mënu wax lepp mais lum'a meuna wax na askan bi déggee nonou président Macky Sall nangu na ñu te wax ko Khalifa Sall du son non Ousmane Sonko du son non te ñom ñett ñep d'accord joko téléphone alors subitement on veut nous faire le coup de l'amnistie un coup d'accord n'a, benen coup bi d'accorduma ci amnistie bi un coup d'accord naa dialogue bi un autre coup d'accord ma dialogue bi man soo ma waxoon d'accord ma dialogue bi mais man du ma man candidat eh way xanaa lii nag di xanaa lii moom neexatul man du candidat man su ngeen ma waxoon ñeen ñaar d'accord appel bi d'accord uñu man du ma dama xuus ngir Senegal ak ngir jàmmu Sénégal maa ko doon wax xam naa wolof bi du ma mën a guddal parce que gis ngeen tey nu ma jekkee sax damay dem Touba maa ngi nii noonu dem tubaa dem seeti suma doomu ndey di suma sëriñ sëriñ Bass Abdou Khadre dal ko jox wàccuwaayam ak tamit comme nu ngeen ko xamee rek dëkk dafa am lu mu tëddee parce que ñun dëkk bi dañu am ay kilifa te kilifa yooyu bu dëkk bi xatee bu dëkk bi tàngee dañ ci jot dox ah, ay jéego yu am solo tay suma waru man ma wat ci kilifa yoyu wax len ci luñu ñun te ci loolu Qui di kilifa ñu ndax Sénégal man un ma président Macky Sall ñu gis-gis ñu politique man duma war kat man marto man je m'appelle Barthélémy Diaz te amna luma nangut c'est fini ça c'est fini munoo ànd ak nit boole ko ci lepp mais yow nit bu ngay wo 1h du matin mais qu'est-ce que yaa ngi koy ci lu nga nek kooku franchement amo amo loo koy nëpp te nit ki su la waxoon jamono yoy d'accorduma nga ne ko comme nak comme d'accordo ma arrêté janvier laa wax 26 janvier 2023 il y a presque 4 mois laa lancé appel ken amul ben leader yene ay journaliste ay sénégalais ñu may dégg amul ben leader politique bu wo Barthélémy Diaz wala wo leader politique bu Barthélémy Diaz wala taxaw ne ñom d'accord ñu ci appel bu Barthélémy Diaz une fois de plus c'est l'appel de Barthélémy Diaz nan na ngeen ma nangul ba tax na su ngeen bëgg leen jàmm mais eh, bëgg leen jàmm ñu déggee ko noonu mais man Barthélémy Diaz gëm naa ni que jàmm mën nañ ci am ndam mën nañ ci jaar ba am ndam man moom laa gëm. maintenant nag suñu waxtane suñu biir duñu déggo man président Macky Sall ci boppam wax naa ko ma ne ko ah président boobu da ngay xam nooy boote sa njaboot rek ñun tamit ñu xam ni ñuy boote suñu bos. ma ne ko parce que président ñun am na ay points on ne sera jamais d' accord du ñu mës a d' accord ci sa troisième mandat duñ ko mës duñ ci mës a d' accord du ñu mës a d' accord ci ngay bëgg a éliminer ay nit. du ñu mës a d' accord ci ñu nga jot a éliminé ba pare te tey nga bañ leen may affaire ñu mën a bokkaat ma ne ko lu ci des yëpp ay waxu ay dialogue

et si les gens veulent continuer à parler je vous dis que je parlerai parce que moi, sénégalais ne suis pas candidat ce n'est pas mon problème parce que man problème moi que moi, le civil le pouvoir Et ces man le civil boobu le ci coalition Askan man politique politique président Macky Sall man ci awma ci ndam keneen moo jël ndam gi dem ak dama sonn ak tay ci di xeex keneen di man lu ma bëgg président bi bàyyeeku ci yeewi askan wi moom lay xeex moom laa gëm leader yeewi askan wi man yéene naa la nga président du Sénégal ak noo munti tudd Ousmane Sonko et mon candidat s'appelle Khalifa Sall mais xanaa ça c'est mon droit ñu ne dañu ci saga. <laughs> on continue di ngeen bàyyi saaga wala di jël la responsabilité d'assumer jusqu'au bout parce que lu ngeen di def tegu leen ko fen te fii ragal dëkku fi ragal dëkku fi fenkat koufi. fi naa fekk nekku fi waaw. amoon naa eh, rek trois questions monsieur le maire pour pour ñu tënk ko question bu njëkk bi mooy yow da nga amoon image bu sénégalais amoon si yow mooy nit ku tàng eh, souvent ñu ne Barthélemy dafa bëri histoire et tout mos la invité émission Walf TV eh, nga ni ba Khalifa Sall di dem ca. Macky Sall ba Covid bi ñëwee yow boo bokkoon nga si ñi ko doon wax ni d'accord aussi loolu lan moo am entre nag ba say discours di évoluer yow mi bañoon dialogue tey nga nekk tey instigateur bu nekk apôtre euh, du dialogue euh, politique. beneen question bi mooy euh, cour cour suprême war na addu ci fan yi di ñëw ci sa procès en appel ci mbirum Ndiaga Diouf. loolu euh, peine bi bu ñu ko confirmer mën nga ñàkk sa poste euh, ca assemblée nationale et même probablement ca mairie bu Dakar même si nee nga d'accord ci ci loolu est-ce que loolu aussi également épée de Damoclès boobu euh, bokkul ci li la gën a poussé tey nga bëgg toog négocier ak li nga xam ni mooy koy mooy président de la République maanaam ngeen ngeen dialoguer beneen question bi mooy dama gis ni sa discours dafa évoluer ci wàllum troisième mandat. sànq nee nga ba nga ak président nee nga ko carrément amul droit troisième mandat mais si yégué ci gënaaw ci entretien télévisé bo defoon nee nga président Macky Sall am droit de troisième mandat lan mo waral ce discours évolué ci euh, euh, question mandat bi merci. dinaa commencer foo ko daanelee mon cher Pierre D'abord, je man duma juriste man suma nexé né man djumna ci mbiru question ou constitution parce que man suis juriste man bamay wax lu may wax ci référendum la won mané Sénégalais da ngeen wootee non.

donc mon constitution de bu 2001 je sais que la loi n'est pas rétroactive donc constitution 2001 moom commence à compter premier mandat du président Abdoulaye qui était le homme pour la première fois te bu mu def 2000 donc constitution 2001 mon considère le premier mandat Abdoulaye en 2007 ba Abdoulaye Wade di xëccoo ak ñun ñu ne ko amoo droit mu ne am droit ñoom ñu ne Abdoulaye Wade droit parce que constitution 2001 bi day compter mandat 2007 ak éventuellement mandat 2012. mu ne ma wante monsieur le maire mu ne ko naam mu ne mais Macky Sall bu muy ñëw fii moom mu ngi fi fekk si fii constitution bu fi Abdoulaye Wade bàyyi woon te constitution boobu limité na déjà mandat yi à deux te président deful. Euh, deful constitution bu bees ma ne ko ah bon mu ne ma déedéet mu ma révision de la constitution lay def ci 16 points Comme, moom lu mu fi fekkoon mooy lu fi Ablaye Wade wote woon ci 2001 te moom la fi fekk bu muy ñëw 2012 nee na ma lu constitution boobu waxoon limitation des mandats moom constitution bu mu laalaat moom la waxaat ci limitation des mandats la constitution le mandat prestation de serment Comme le président Macky Sall été Je ne ah, professeur ba waxuma ah ku nekk ci xam-xamam mu ne yow waxu politique nga xam ah, donc ci côté nous Sénégalais si j'ai induit des Sénégalais en erreur je leen wante man nekkuma fii pour di que a tuur lëndëm nit ñi wala di lëndëmal xelu nit ñi ça m'intéresse pas bon beneen bi loolu laa bëggoon wax ci sa question concernant ma position sur l'évolution du discours sur le troisième mandat non et je considère aujourd'hui que suite ak discussion boobu moo am ak constitutionnaliste boobu tey heure bi nii président Macky Sall amul droit am troisième mandat wante moom wax dëgg yàlla waxuma est-ce que day def troisième mandat wala def troisième mandat mu ne ma da ngeen bëgg ñu waxtaanee ko mu ne ko waaw mu ne ma ok d'accord dëgg naa la mais loolu xanaa mën nañu ko waxtaanee comme moom nee am na ay argument ñun am nañu ay argument beneen bi yaa ngi ne euh, nu ma gars yi doon xoolee man nit bu tàng laa woon daanaka ci gàttal sax nit nitu fitna laa woon ah, waxoo sax lépp parce

nous sommes à dix mois d'une élection présidentielle ku est ngi force restera à la loi Qui force restera au peuple ku nekk menace ngi menacé sa morom man bokkuma ci élection bu ma xam ngeen su ma neexoon toog suma place di lijjanti suma néegi Dakar tranquillement te am naa lu ma doy sëkk nag

du politique parce que xel moy politique xol du politique ci politique xel moy xex, xol du xex. ma gis président Macky Sall téye bañ a ma gis suma ñu teye baña a man mi tamit ma bokk tamit ci gaay tamit di teye. ma xam tamit suma bopp ma ne ah comme jàmm wolof njaay na na jàmm ci lépp a xaj naa jéemoo lancé appel comme président joxoon naa ko lettre nekkoon na ma dalal pour mérite Dakar mu mu ignoré ma tontuwu ma à, ne ah, lancé un appel public le 26 janvier 2023 sur Walfadri et sur Seneweb en grand format j'ai lancé un appel et à partir de cet appel là pour naa le plus lu ma def yaa ngi wax léegi nii lu tax ma <laughs>

donc tay, du ma doon def yaa dix ans ci ginnaaw tey di nekkatul suma cieur man ba ma xex xex na senegal Sénégal ba euh naroon kasso kaso na kasso j'ai tout fait dans ce pays motax tay suma dege ñen déggee ñi di wax ne ni que ñom luñu dund luñu vivre kenn mësu ko fi dund senegal dama ne Sénégalais yan lay waxal fi amna na benn góor bu ñu doon président Mamadou Dia yalla nako yalla xaré ci àjjana yu gëna kawé yi koku duñ ko def Sénégal yàlla buñ ko fi defee ci doomu adama Sénégal koku xeetu toroxal buñ ko toroxal Sénégal yàlla buñ fi mës a tox toroxal ci ñit Sénégal euh, de cette façon jamais de la vie koku mo nekkoon équivalent au premier ministre tay parce que génération future yi xamuñu il faut ñu xamal leen koku dañ ko jaay doole tëj ko kasso bañ koy au Sénégal lu fu doon 5 millions là wax Sénégal bi Sénégal bi Dakar lu 100 personnes surtout fi centenaire Dolen ay bal 100 personnes jamono boobu amul internet jamono bobo, amul réseaux sociaux amul journaux benn parti politique Sénégal donc il faut savoir raison garder sénégalais yi l'homme qui a le plus souffert au Sénégal s'appelle Mamoudou Dia Il a 12 ans il est mort aveugle Il lu mu daj pour Sénégal Il est mort pour le Sénégal respectons les Sénégalais ku nekk ci ñun fii Sénégal ci lu nga mën ak loolu mooy dëgg bi posé la première question c'était Ndiaga Diouf ah waaw mais mais Pierre <laughs> mais Pierre il yaa a xam ne ni man dañ may condamné t'as-tu le sais. xam nga ne dañ may condamné Pierre mais parce que Pierre Sénégal wax nañ ko justice bi wax dëgg yàlla justice bi Ken amatu ci Ken kenn amatu ci yaakaar posture Ousmane Sonko je du ma ko commenter, ma ko commenté c'est son droit. man munuma xas kenn kuy jóg tey ne man daw ma wuy yi tribunal man ñaata yoon lañ ma convoqué fii ma ne man ñëwuma yéen xam ngeen ci dara fekk ngeen lépp yéen da ngeen fekkee démb ak bërki démb Sénégal bi dara beesu fi fii gars yi ñooy fooy seen xel rek dara beesu fi fii tey am na benn candidat su amee élection suba moom day bokk mais apparemment ci lu ñuy gis ñun parce que ñun ay acteurs politiques lañu yéen ay observateurs politiques ngeen yéen xam ngeen bu baax ñu ngi koy jéem a galgal dara beesu fi xanaa Khalifa Sall kenn kenn galgal ko fi lu lu tax ñu galgal Khalifa Sall parce que lu sondage yi waxoon mooy su bokkoon élection présidentielle 2019 amoon na làmbaay ñaaw kon fii dara beesu fi mais Khalifa Sall bañ koy tabaxal.

Khalifa Sall a été digne jusqu'au bout Khalifa Sall mérité le tey de koy teg te dama ne dañu dul toogati di ko seetaan yéen lu ci kan walu lu dañ dem rek. ma ma ñëw dans l'affaire Ndiaga Diouf non dans l'affaire de Diouf ma ñëw dans l'affaire Ndiaga Diouf dañ ma juger première instance man leen da nga ne ma jaay doole damay appel ñu ne ma Barth bu appel parce que ñom bëggu ñu appel Nang ko yamalé fi malen sugen su ngeen ma condamné woon benn fan ak ma fay deureum la wax deureum dërëm dërëmu euh, alamande damay appel ma dem appel gay jaay ma dolé wa ku la jaay dolé première instance jaay la dolé appel mais dina la jaay dolé cassation xamna président Macky Sall sax xamna dafa xaw jaxlé quoi parce que xamna il doit se poser la question lu tax baat waxul ci waxu dossier Ndiaga Diouf parce que kippéewu ma ko dundu ma man xamna dafuma dara maintenant je dinañ ma condamné lolu ñep xam nañ ko man xam ma les conséquences dina perte suma mandat député xam na ko wante man assemblée bu nga xam ni man xam ni que ak at dañ koy man nga ci assemblée bi ak ci assemblée man ne na ci a élection présidentielle amul candidat. kooku dem ba ne man suma candidat mi ngi tudd Khalifa Ababacar Sall moom laay ñaan yàlla mu mën a bokk ci élection yi ma mën ko jàppale wante su ko yàlla mayulee aafiya ma tudd tur ma ne man Ousmane Sonko bu Pastef lay jàppale waa kooku wàccoo naa ak moom wala wàccoowuma ak moom dam lañ di laaj Sénégalais ñu ngi may dégg wax dëgg yàlla kooku su luñ ko wax noonu su ko doyut amul leneen lu koy doy te wax dëgg yàlla man politique du doxaan kenn ci politique dañuy ànd rek te yàlla gis-gis boo ko yéene maa ngi jógu nag ci kàddu yi nag parce que amaana peut-être kàddu yi xaw a xaw a xaw a xaw a ñagaas wante daal man politique daal nu leen ko waxee parce que wolof yi xóotul ci kenn dañuy mën a ànd rek beneen bi mooy euh, te tamit ci neexal kenn

le 26 janvier 2023 fan ngeen mës a déggee Ousmane Sonko est d'accord Yo journaliste nga d'abord wax ma fan. ñetti weer parce lu tegu presque ñeenti weer musul waxtu ma ko moom d'accordul Ousmane Sonko wax naa leen damay lancer appel bi mu am ay nit yu bàyyi ci njabootu président Macky Sall di dox ay tanku jamm. pour dire mon rôle sincérité suma appel man moo tax ma président Macky Sall du sa appel suma boss la. ba ñu dem ba gis sincérité bi parce que ñooñu saay bu ñu doon ñëw dañu doon ñëw suma kër fu ma dëkk baobab ba leen di gërëm di leen di sant parce que lu ñu def mënoon ils n'avaient aucun intérêt leen di gërëm leen di sant ñu ne monsieur le maire ñun dañ la dégg nga woote jàmm ñun tamit lu ñu bëgg gis Sénégal mooy jàmm kon wax ñu yow noo ko gisee lepp lu may ak Mangi di wax ak ñom Djoko, ngi ak Ousmane Sonko maa ngi ak ci musuma wax Ousmane Sonko président Macky Sall dalal na fi waxtu ne une heure du matin man mako une heure du matin da fonk wala ko une heure du matin da wala fan que moi je dois faire un compte rendu à Khalifa ou à Ousmane Sonko mais parce que ma gëm dialogue bi ma gëm ni que ñom tamit ay nitu jàmm lañu ma gëm ni que président Macky Sall amana ko nax wante am lu ci mom nak taxaw sax ñu ngi mais ñuy toog ne ñom bu dialogue mais dafa am lu leen Je wax su élection suba ñom ils sont éligibles ñom dañuy bokk. waaw lu tax yow nga bëgg a bokk te man nga bañ man nga yow yow yow yow nga bañ man nangul man ma jëm a xool man lan laay def ba bokk te yow ne nga yow pour nga mën a bokk yow jaral na la ay bakken rab man ma ne la man pour ma bokk jaral na ma man ma dem jalo gi wallaay wallaay loolu jarul jarul nga ma ciy saaga du ma ko nanguti c'est fini su lépp naroo yàqu ñu xam ne day yàqu yàqeet wax bi jeex ñëpp ànd na ñàkk mais boobaa nag na ko senegal yi déggee noonu luy yàqu du bàyyi ko ci ñun parce que attaqué wuñu kenn ken, kenn xasuñu kenn wante nag du ñu ay yaafuus te du ñu ay ragal te tamé du ñu ay naaféq te du ñu ay fenkat parce que on open nag tuuru les Sénégalais nous observent et nous avons rendez-vous avec l'histoire il faut savoir raison garder Abdouna yamul fii Khalifa Sall bëggoon na un candidat am déet 2000 12, il voulait. De 2019, il voulait. 2019, il voulait. la que les gens s'inspirent de l'exemple de Khalifa Sall mais tu as di ne man Khalifa Sall mais bien sûr que tu t'appelles pas Khalifa Sall parce qu'on sait qu'à l'état civil tu t'appelles pas Khalifa Sall ça on le sait et merci merci pour la précision aussi amoon na dialogue bu ñu fi defoon ñoom dañoo jàpp ni tout saa pour saa lañu ko tuddee tey jii nga ñëw wax ni dañoo war defaat beneen dialogue ñoom ñu ngi wax ni euh, euh, moom Macky Sall président Macky Sall da leen di lalal ay ndigg sërëx yoo xam ni buñ ca demee euh, mën nañ ci am lu leen ci lool yow tey jii nga toog ni sa xel dal na ci dialogue bi est-ce que jàppoon ni ñoom perception bi ñu am ak yow perception bi nga am bokkuñu parce que ñoom dañoo jàpp ni ndigg sërëx lañ leen lalal ci dialogue bi

Parce qu'à l'époque déjà, j'avais dit le dialogue n'était pas sincère. On cherchait à valider un hold-up électoral. parce que nous, nous avons, na de Nous gouvernement d'ouverture nous Nous, ci ay de ministre nous dialogue Nous gouvernement union un ministre Nous avons dañu bëgg nous avons a dalal xelu président Macky Sall dama am yaakaar ci dialogue bi dama ne man lancé naa un appel au dialogue ba ma koy lancé personne ne s'est opposé man Barthélémy je suis assez audible et visible dans ce pays damay joxe exemple le 26 janvier 2023 su ma waxoon damay laajte rek su ma waxoon ñun d'accord nañ pour que président Macky Sall def troisième mandat est-ce que xalaat ngeen une seconde que waa Yewwi Askan Wi dañu ne muut dama leen di laaj rek yéen ñii journalistes askan bi may leen di laaj suma waxone le 26 janvier 2023 Macky Sall le droit droit am troisième mandat te ñun waa Yewwi Askan bi dañ ci doon a est-ce que xalat ngeen ni que waa Yewwi Askan Wi dañuy noppi di ma di di ma seetaan vous allez réagir donc moi le 26 janvier 2023 j'ai lancé un appel au dialogue personne ne s'est opposé

ku bokul ci election yi manam d'accord ci ci ñettel mandat bi ñi wax koku war na wara wara war a dialogue comprendre ma question bi nga né man ndax tay xel nanguna ko xamanteni né nañu wurtu bok ci election yi ñu deggmal ndax koku war na wara ay dialogue pour pour waxtan ci ci way rew mi wa mais yow man mbeug wax ci lèr mhm. Khalifa Sall même suma ma and ak mom tay ne ko kay ñu genn ci mbedd bi na ay bakken root dinañ don candidat dama ko xam dina ma ne buggutuma doon candidat Khalifa Sall ba mu nekk ci kasso bi il n'a posé aucun acte pour soi des ñu génne ko bañ koy tere mu doon candidat ba muy génn kasso bi il n'a posé aucun acte pour forcer quoi que ce soit lu tax tey ngeen bëgg ko bañal moom mu mën a dem vers un dialogue waaw yéen maintenant yéen ñuy taxaw di nekk ñu boom ay sénégalais seen yaay jurat yan lan moo ci seen xalaat yan am nañ ci benn xalaat yow est ce que yow di nga yow sa doom dem ñu boom ko xam lay laaj yow. mais ñu waxe nga noonu de. non déet xam nga ñun ñu ngi ci dëkk bi ñu Chine ñun fi dañu dëkk lu gars yi di wax ñu koy dégg am ay nopp nag mën a dégg ñu dama ne lu waay wax respecté nañu sa stratégie musuñu ko commenté. parce que ku nek ak noko ko ak noko noko sentiré. Yo sentiree yow nga noonu nga fas yéene résister nangul nañ la ko wante ñun nee nañu ñun dañuy résister wante ñun gëm nañ ko dialogue mëna na indil dara Sénégal ñuy taxaw tey di nek Khalifa Sall amul dara su demee élection du am dara Khalifa Sall bu muy commencé di politique ñuy nek fi yëpp di wax kenn ci ñom ju dugguloon Khalifa Sall a 50 ans d'actif politique faut respecter les gens le parti socialiste liggéey au Sénégal nga taxaw socialiste yi amuñu fi dara nañu tëgg élection yi ngeen xool politique du làmmiñ politique jëf la il faut qu'on se comprenne lu Khalifa di am lu Khalifa dul am yoonu kenn newu ci may may la ñu rek ñu bokk ci élection yi di ngeen xam ne ay ndaanaan ñi ngi soog ñoo bokk ci élection yi da ngeen foog ne dañuy dem élection rek pour lan pour figuration comme mu neex nag man suma nexi tay feug fëgg den ma dënn man suma ma election premier tour damay gagné su ma wax ko mais nag am na ñuy wax di jëf man waxoon naa ne su élection 19 h 30 naa ngi jublé def nako suma su ci kaw dama ne fi pour nga doon président du Sénégal premier tour daanaka fokk nga nek yo candidat lu ñuy woy coalition des coalitions manam nga doon par exemple candidat wu Yewwi ak Wallu fi ñuy wax ñep dañuy fural rek kenn amu fi 35 puis élection à la second tour mars je les invite à ne pas insulter l'avenir parce que nous ne xam pas avons soxla voix il faut qu'on apprenne à se respecter à se tolérer à s'apprécier Il y la lii du il ay poste dara président de la république lii àdduna la je vous l'ai déjà dit nous lançons lancé appel Quel musu ci kenn ci opposé lu gars di dem di dik yëpp yëgal naa leen ñoom ñëpp ci lu ma nekk kenn ci ñoom mosu ne Barth arrêtel d'accordu ma yow ku dem beneen la Barth gën a ne une heure du matin woo ma mais parce que d'accord na ci lu mu doon dox parce que moom dox naa ko cër bu toll nii su ma waxoon dès le début lii d'accordu ma ci lii sentiruma ko du ma ci xuus man du ma candidat kon je je cherche à à créer les conditions d'élection apaisées pour qui pas pour moi man nga pas ma euh, dossier Ce c'est pas mon problème beaucoup moins élection c'est pas mon problème <laughs> donc je comprends autant d'excitation d'agitation autant d'émotion et de passion pourquoi qui est-ce qu'on cherche à manipuler ici qui est-ce qu'on cherche à endormir ici te parce que mi ngi à bëgg de et je vous ai dit nous ñëwuma fi pour teesante dama ñëw fi pour wax ak askan bi ma part de vérité man Askanou Sénégal yàlla may xel te le ci man parce que maa commencé à di pour politique ils connaissent toutes les facettes de Barthélémy Diaz Ça pour nous pomme. mais je fu ngeen ne que pas nangu mukk pour jamais de la vie te dëkk je suis fier de l'avoir vécu si c'était à refaire je referais la même chose Ousmane Sonko xam est-ce que moom yore naa ko mu doon président am dette mais nañ ko teg ci yoon ci yoon rek suñ ko tegee ci yoon yàlla amaan na mën na ci def sutura mais ay euh, ñi la ko gisee ñëpp ki gisee noonu dama ne tu as tapé à la mauvaise porte ça marchera pas ici mon cher Bour. J'ai raté la partie française, mais en version Wolof, euh, vous avez dit que yow avez initié li nga dialogue est-ce que vous avez confiance au président Macky Sall parce que ñu bëri ñu ngi wax ne defoon ngeen fi dialogue waxtaan ngeen mais amul ci benn engagement boo xamante ni am na diggante moom ak opposition boo xam ne respecté nañ ko est ce que d' abord vous avez l' engagement du président Macky Sall que li nga xamante ni boo leen di demee dialogue di ngeen ko euh, moom président Macky Sall après mën na ko appliquer c'est la première fois et puis c'est un peu étonnant que euh, da ngay gis nañ ci de presse vous avez attaqué euh, froidement à votre frère comme vous avez l'habitude de, l'appeler le président Ousmane Sonko est-ce que c'est le début euh, de séparation ou de de guerre par presse interposée euh, euh, Bour, dina commencer fort daanale Bour, man attaqué au ken Bour, je parle avec les Sénégalais parce que tant yi ñu bëri j'ai décidé de donner ma part de vérité aux Sénégalais les Sénégalais ont entendu tous les sons de cloche Gagner, si ñu continuer di wax ma et si les gens passent au niveau des preuves chacun apportera les preuves qu'il a Et je pense qu'on n'arrivera pas là parce que c'est comme si on cherche à manipuler le peuple sénégalais pour tirer la couverture d'un côté. mais c'est le sentiment que j'ai. Et c'est le sentiment que l'écrasante majorité des militants et des sympathisants de Tahaou Sénégal ont. Ils considèrent que Nunko Circle, ils n'ont pas du tout été, été, Vous élégants. Taï, de les réseaux sociaux Dans mon Facebook Nous quel Khalifa Sall, mais quel Khamouli Land Fouine Kotek xam ngeen maa ngi jógoo nag ci kàddu yi reewantu tubéy la ku mu neex sol ku mu neex sumi xam ngeen wax naa leen lu tax ma choisir format bi amul kenn ci yéen fii kuy fii journaliste sénégalais yi respecté wuñu la ci sa taxawaay amul kenn fii ku nga xam ne ñëw nga ñu ne la poser question yow la bu poser question bi su ma neexoon léegi ñuy def live def 95 000 vues carte de crédit kese la président Macky Sall c'est l'homme le plus impopulaire du Sénégal du loolu loolu la gaay wax def na vues am déet damay laajte rek naka les hommes di nekk impopulaire def ay vues j'ai choisi ce schéma pour parler avec les Sénégalais sans aucune limite et sans aucun tabou Sénégalais ils sont libres am nañ dégg je le dis je le répète ah, aux Sénégalais d'écouter et d'apprécier.